ràññee woon ko ci wàllu bi mujjoon liggéey parce que bi muy nekk bi may nekk ministre de l'industrie et des mines euh, la ko président tabb président du conseil d'administration de MIFERSO donc ñu euh, pendant des années ñu xawoon na jege lool ci ci liggéey même bi ma jógee miin aussi ñu maintenir ay relation Ibrahima moom wax dëgg yàlla Sénégal ñàkk na ko Sénégal ñàkk na ko am valeur ko am ay conviction mais jikko yi ngeen xaw am ay bureau ay principe. waaw waaw waaw moom moom moom wax dëgg yàlla du boo ko seetloo ci position comme li ma wax rek euh, mën naa mën naa am formation syndicaliste bi la président wax na ko léegi nii bi muy milité booba milité yombut. Sénégal mu tere terewul mu nekk foofu dafa mu nekkoon donc il a été constant fa la nekk ba li ko yàlla di moomee euh, euh, position nag da ko daan yàgg a défendre day weesu di ko wax da koy bind donc loolu moom tey jii yaakaar naa ne tey bu doon ku doon jël ay recueil ci li mu bind rek da nga ciy def ay téere yu du jeex xale yi war cee mën a jàng lan mooy conviction intime conviction da ko daan wax da ko daan bind da ko daan exprimer ci lépp loo xam ne li intéressé woon na Sénégal intéressé na mu daan. loo koy ñaanal mi ngi